du ma ci yem sax nag tey dama lay génneel bu bees tàq dégg nga du ma ci yem dama lay génneel bu bees tàq waa kër Maodo la ahlu jaafi wannoone waa kër Maodo la ahlu jaafi wannoone waa kër Maodo بالنعم والنون وكر موضوع أهل النعم والنون سن بابكر مام عبد الحاج منصور ناي مع حبيب جلال أهل النعم والنون moom Abdou Alaaji Mansour ñoom maam Habib Diallo ahlul bi'fi wan nuuri waaw waaw baay Sëñ Babacar maam Abdou Alaaji Mansour ñoom baay Habib Diallo ahlul bi'fi wan nuuri أهل الضعف والنون ودم أوان أيوادي أهل الضيافي أهل الضيافي والنوني أهل الضيافي أهل الضيافي والنوني أهل الضيافي أهل الضيافي والنوني أهل الدفء والنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم dama leen bëgg a waxtaanal tey ci chiffre 4 moo tax man la bàyyi Serigne Babacar maam Abdou Alaaji Mansour Malick maam Habib Diallo ñaata la du 4 tey chiffre 4 laay waxtaanee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 والياقوتة المتحققة الحائتة بمركز الفهوم والمعاني العين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراتك التام الأسقم الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى صراط الله صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ورد الله الخالد عن شيخنا وأستاذنا وعمدتنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا أبي العباس أحمد التجاني سقانا الله من بحره بعظم الكؤوس الأواني وعن خليفته الأكبر والولي الأشهر مولانا الشيخ سيد الحاج مالك ابن عثمان تابلهما الرحمن حتى خليفتنا هذا الشيخ سيد أبي بكر نجل الشيخ الحاج محمد الموصول بقي السلام عليكم نجي سنت يالا دي نيو نيب دي زيارة نيب دي جيتل تنيو بي نجي كبني تي جيتلي إمام في دوكو تاي موي كلمة defe naa suñu ci limee suñu bàyyi aadama ngiraan ki suñu sëriñ naka noonu itam ñu teg ci suñu bàyyi alxaaji Cerno Jëw naka noonu lañuy nuyoo mboolem ku yeewoo biir kel di nuyu képp koo xam ni yaa ngi dox walla ngay yëngatu ci lépp loo xam ni luy jëmale kel kanam la ñëw ci jotaay bi nag nuyu bu baax a baax a baax sëriñ Isa bu ñu nee sëriñ Isa ñun ñépp dañuy dugg waaye ñun bu ñu ko joxee suñu nuyoo moom mu tegal ñu ko ci loxo suñu sëriñ di suñu soppe mu mawlaaya Cheikh El Hadj Abdoul Aziz najji Cheikh Seydi Abi Bakr najji Cheikh El Hadj Abdoul Aziz najji Cheikh El Hadj Malick yi bàyyi leen di wax diw ibn diw hmm. alaaji malik jurul ibn alaaji malik ay nujalaa la yor que koo xam ni wax naag yàlla ba yàlla d'accord ak moom waaw que boo nee ibn kooku doomu penc la mën naa yàq penc bi ëllëg lu leer laa leen wax baatu ibn soo ko tuddee ëllëg kooku mën naa dox ba yàq pénc mi mais najl kooku dañu ko préparer mu door a ñëw dafa bokk ci ñiy jagal ñiy jagal pénc mooy ñiy toog gis nga nag ñëw paakaaka mën a watab leel mais leer dañu koy judduwaale xam nga dégg ngeen li ñaw paaka taxu mën a watab leel leel dañ koy judduwaale Hmm? te sa cër ñoo di sa buur na nga ci xare ba am ci nguur bàyyi di buur taxula faru ko am garaat xam ko may li tax wax leen loolu leen bindu mag ñi kan ngeen ci digg mu tudd baatu ibn sëriñ bi ñoom bi wax ak samaam wax araftul wara وغربا ولا wala ara kamisli lu lu tax lu tax gis nga tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ ko am lool wallahi ku ko yan bëccëg ñoom seen mission ku ko yan bëccëg di nga ak say mbokk ñii lañu yàlla dénk ñuy njabootu Cheikh Seydou El Hadji Malick moo tax sëñ Babacar si bi ñuy wax ci Cheikh Seydou El Hadji Malick si ak njabootam yëpp daf ne fa antum yaa ahibaa yi dum ca teg fa luudu bil gara ala yéen ñi nga xam ni da ngeen bëgg a baax di ut mbaax te xamu leen fu mbaax nekk kaay leen ma won leen yoonu mbaax xam yoonu mbaax mooy kan ngëm ki li Cheikh Seydul Hadji Malick moo tax ca bopp xasida bi mu ne kon xasat naa man xat sama fadlan kon ku am Maodo maa ngi yow dimbali ma rek gis na nitu yàlla dafa nu ma ñu ñëpp ñu comprendre ko tey nitu yàlla mission bi ñu koy doyee mooy mu téye koo xam ne dégg nitu yàlla li ñu koy doyee nitu yàlla lañ koy doyee mooy mu yóbbu nit ki ci yàlla loolu nit yàlla yëpp ñoo ci bokk yam te ñoo ca bokk nag ñoo bokk mission boobu xam nga nit yàlla yi fan lañu wute nitu yàlla bi mën a jël turam ràbb ko ci làmmiñu taalibeem ba lu mu ca ñaan mu nangu foofu la gaa yi wute est-ce que li ma dama ne nitu yàlla bi mën a jël turam turam ràbb ko ci làmmiñu taalibeem ba lu ca ba ca taalibe bi ñaan mu nag lan moo tax mag ñi ku ci mësu tudd sëñ Babacar sa affaire baax parce que dañoo jël turu Cheikh Seydi Aboubacar daf ko ismilaahil azamil kabir ci seen làmmiñ luñ ca ñaan yàlla mu nangu léegi ñun nañ xool ñun génération yi fan lañ ci tolloog suñu kilifa yi wa man lam yakun yara amaanata malikin maam Cheikh Alhaaj Mouhamadul Mansour moo ko wax nee na def leen attention ku jàpp ne ñi nga jamonoon teel ci njabootu Cheikh Seydul Haaji Malick gii jàppe nga leen nawle ba jël sa loxo teg ko teg ko ci sëriñ bi di ko déey def ko ndam maag sëriñ bi ñoo reere tey ñoo reerandoo tey def ko ndam sëriñ bi daa summi jox ma ma sol def ko ndam sëriñ bi daa dank jox ma def ko ndam yëgoo nekk kullu man winti mbil yàkkante amaane bil yàqule te kullu seens daa iman fàttali kii dem ba li ma bëgg ñu xam ko mooy gis nga taalibe su bëtam xonkee xelam dem ci keneen ku dul sëriñam na bàyyi kooku te uti sëriñ taalibe su bëtam xonkee xelam dem ci beneen sëriñ bu dul sëriñam sëriñ boobu na ko bàyyi moom te dem uti sëriñ parce que kooku matatu ko sëriñ te yàlla la soob ci mbaaxam Cheikh Seydul Xaaji Malick Si radiallahu taala anhu sëriñ bi damay wax ni yàlla bi muy ràng yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax naa ko fa ni passé yàlla bi muy ràng yonent bi alayhi salaatu wasalaam grade yu mag yi ma ko ràng yëpp dafa am benn baat bu mu utiliser te kuñ ko fi waxoon tey say mbokk ñooy njëkk jug xeex mooy doo dara yàlla joxar bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko man yàlla maay wax ak yow dinaa fekk fu dara nekkul fekk la ci biir def la ngay dara fal urbu xayru unaasin suma xayruhumu xuraysuhum wa huwa fihim yëgoon ni xayru xayrihim mooy Sidi Ahmad Tijaani Ousseynou xama ko fal urbu xayru unaasin mooy yàlla la soob mu def yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu gën ci mbindeef yi suma xayruhumu nag moom ba muy dem passation de service fiihim suma xayruhumu xurayshihum xuraysh soo ko déchiffré 1310 la mooy tolloog wal hëdi ila siraatikal mustaqim looloo tax yonent bi dund 63 ans yonent bi li tax mu dund 63 ans du problème mu at problème mu transition la parce que leng yi mu yoroon il fallait que mu jox ko Mawlaay Sidi Ahmad Tijaani moo wax loo fay ne tey dinaa la wax lu tax yonent bi dund 63 ans fekkoon fekkoon problème mu at rek la yàlla du ko ne innaka mayitun wa innahum mayituuna suñ dégguma de sëñ Babacar Si radiallahu taala anhu nafaana allahu bi barakaatihi moo ne cheikh sayidi ahmad tijaani radiallahu taala anhu ci nattale dafa am ñaar fukk ak benn bankal sa baaraam ñaar fukk ak benn benn yoon mu dem seet ci sëriñ boo xam ne bi mu ñëwee sëriñ bi bi ñu calculer turam ñaar fukk ak benn la yaaraa xilan bi ngeen di way looloo tax yonent bi dund 63 ans chérif déggoo ma de yaaraa xilan bi gars yi di way loolu moo tax yonent bi dund 63 ans parce que dafa dem mom seydou Cheikh amadou Tidiane ci ñaar fukelu atam ak ben mu dem ci serigne buñu wax sidi Tayyib Tayyib soo ko déchiffré 21 ans lay do 21 ans plus 21 ñaata la 42 mu dem ci serigne sidi Tayyib mu jox ko 21 ans jikko yi nga xam mo wara defar jamono ginnaaw ak kep kuy khalifa 21 ans plus 21 ans plus 21 ñaata la kon amara nabi ñew loolu moo indi amara nabi imaamana bi tanazuli li ifaadati l axlaaqi bil wirdil jëli gis nga mission ku ko yan sa bopp foo jaar woote dina la sonal bind gaa yi ci registre bi dina la sonal koo am bu xëyee suba dem seeti sëñ maam Abdou Si nga ne ñàkk naa tey gis nga ku xaar ba toog fii ci àddina fii di njëkkantee taalibi yoroo mission ay pexe nga yor man demb maa la ko wax taalibi kenn ko utee fii laysatil xiila fii kasril xiila balil xiila fii tarkil xiila léegi ay pexe fi ne mais ku nekk kala yàlla booleel keroog bi borom bi subhanahu wa taala joxar bee ruux yépp ne alastu bi rabbikum keroog kenn ku nekk ka nga war a jaayanteel keroog nga jaayanteeg moom mais ku xaar ba ñëw fii naan saawaay man yaay sama taalibi kaay ma bind ci registre bi sa numéro téléphone sëñ bi ci prix laa lay wax ci prix loolu moo indi yonent bi dund 63 ans alayhi afdalu salaatu wassalaam moo tax bu ma déggee nit ku toog ci télé naan yonent bi ba Mouhamad boo ko déchiffré 92 dama naan kii na jàngiwaat ah ah sëñ bi yonent

un nombre cardinal précède la multiplicité de ces deux chiffres mais un nombre ordinal permet à l'individu de faire son escalier de vie pour lui permettre d'avoir une espérance de vie espérée. All that glitters is not gold. I speak English. kii dégg turu Mouhamad du 92. xoolal. ah. cosaan bi. cosaan bi. maanaam xam nga boo nee Ibnu Abdallah kooku 92 la waaye Rasulullah du 92. waaw moo tax kii tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su yemee ci Ibnu Abdallah. dépense bi dana mat yére yi dana rafet waaye mu àggoon ci rasulullah ba saa yu way mu teg ko loxo ba mu teggee ko ku ko jàkkaarloog moom sa affaire baax foofu la affaire bi ne. gars yi ngi dégg yow yéen waykat am na ñu naan waqadis tashmala déedéet waqadis tamala la. dua kadis tasmala wa kadis tamala istafala ak istafallala bokkul ak may dégg wa qad istamala ismuhu sharifun ala arba'i huruf al hijaiyah gis nag noonu ñu koy bindee orthographe bi orthographe bi noonu nga war a calculer turu Muhammad waaye du lettre bi nga koy calculer xam nga soo jàngee linguistique dafa am son bi am prononciation bi les glandes li muy prononcé bokkul ak leen narines li muy prononcé bokkul ak le thorax li muy ubbi leer na kon da nga nan mimun mim di 40 ya di 10 mim di 40 jeul moy 90 moy mim bu njëkk bi xaa kon orthographe bi ngay calculer halon ko ñaata la du 8 alif bi di ben del gi di 4 moy 35 nga jël 90 plus 35 ñu dem calculer leen ko. 125 nga jëlaat mii mun 90 dolli ci nga jël daalun boo ko bindee del 4 la alif 1 la lam lu mu lay jox léegi xoolal li mu lay jox léegi nag mim bu mu mim bi ci digg soo xoolee dafa am shidda kon double lay compter dolli ci quatre-vingt-dix muy trois cent quatorze trois cent quatorze bi lii moo indi gazwatu Badri sëñ bi man gone yaruma de lii moo indi gazwatu Badri trois cent treize yooyu

yaa rasulallah jërëjëf jëndu leen ba ñu bëggaat ba xol yëpp fees nga xam ne ñoo séddoo ku baax muy sayyiduna Muhammad jalaayiruna tubaa bi jaay Muhammad kabaayiruna tubaa bi jaay Muhammad falillahi nurul alamin Muhammad maanaam mu ne waqat jaa awul jibril sëriñ may ma tuuti moom nga ne la nga ne taalal taalal wala xam nga la waqat jaa awul jibril xam nga sànq nee naa la chiffre 4 si Malick maa ngi jégalu dé xam nga sànq nee naa la chiffre 4 4 li koy réglé xoolal su la neexee nga ne alif laam laam al saqeer du ka su la neexee nga ni miim xadam dellu miim dellu du ka su la neexee nga ni jibril mikail asrafil azrail du ka ah su la neexee nga ne kamtamu xaswaratu taykalu ak maasiru du ka ñooñu mu doon ñooñu ñan la. ñooñu ñooñee. ñooñu ñooñee. mu ne waxat ca dëgg-dëgg gis nga xat. sànq maa ngi lay wax maa ngi lay wax sànq ne la ci biir continuité bi.